Euh, politicien bu fi am doole jigéen ñi ñoo la dooleel. Mm-hmm. mais aujourd'hui dañu gis une faible représentativité euh, des des des femmes ci yenn instances yu nga xamante ni ay instances yu mag la. tout à fait Aïcha nga baal ma rek ma souhaiter une bonne fête à toutes les femmes en commençant par ki nga xam ne moom mooy directrice bi je m'associe vraiment véritablement ci li nga xam ne wax ngeen ko ci témoignage parce que yéen yéenay liggéey ak moom mais ñun aussi d'un côté bu koy gis aussi day nekk référence une référence féminine dans son domaine donc ñu koy souhaiter une bonne fête des femmes di ko souhaiter aussi à toutes les femmes de Rewmi mm-hmm. par ricochet Rewmi la parti et Rewmi le pays. le pays voilà donc pour ma ñëw d'abord avant may ñëw sa question aussi ma ñëw sur le thème li ko sabab. Mm-hmm. wax nga ko sànq le monde digital maintenant est de plus en plus féminisé mhm. te auparavant c'était un monde assez masculin jigéen jigéen ñi daawuñu ci gis seen bopp bu baax wala sax jigéen ñi si jot a nekk sax daawuñu leen valoriser wala sax seen représentativité aussi dans ce secteur là daawul bari parce que loolu moo sabab ñu andi thème bi pour wane qu'il y a une exclusion effectivement des femmes dans ce domaine là et mhm. qu'il a un impact aussi derrière parce que bu amul inclusion ci domaine technologique lépp lu ñuy xaar ci ay retombées économiques et sociales duñu ko am parce que liñ naan looy def euh, te boolewoo ci ñëpp dafay mel da nga koy def contre ñi nga ci boolewul bu ma leeralee foofu mooy bu fekkee dañuy concevoir un monde technologique nga xam ne c'est notre quotidien léegi li ngay lekk li ngay naan la santé l'agriculture entre autres tout est tout a un processus euh, carrément digital. Mhm. bu fekkee dañuy concevoir un monde comme ça sans ñu dugal ci les femmes sans ñu valoriser les femmes sans ñu impliquer les femmes dinañ am ay résultat peut-être dinañ am ay solution mais ça sera des solutions biaisées. ok day nekk solution yoo xam ne jigéen ñi duñ ci gis seen bopp. je pense que c'est pour cela que le thème ñu andi ko cette ci pour l'innovation mhm. technologique effectivement pour l'égalité des sexes ñu dugal ci jigéen ñi aussi euh, veiller effectivement à la formation en informatique ba ci actuellement sur les nouvelles technologies les femmes sont maintenant dans le coding ñu ngi ci ay big data ñu ngi ci yeneen yoo xamante ni ay start-up yoo xamante ni c'est pour l'innovation technologique mm -hmm. donc tey jii nii effectivement l'effet folklore l'effet mhm. ko mais war nañ wane les acquis que jógee aussi ñu évaluer fan lañ ci jëm ak yan impact moo am d'ici à 2030 par rapport à l'agenda et aussi xool Sénégal ci fan la si toll parce que Sénégal boo xoolee 3,3 pour cent du produit intérieur brut la internet représenté dans ce pays là et que 26 pour cent seulement de ñoo nekk dans ce secteur là. Mm-hmm. jarul la mooy le ministère de l'économie numérique et des télécommunications le ministère de la femme pour xool comment corriger cet une meilleure inclusion des femmes dans le monde du numérique. donc comme je suis politique je vais pas mais c'est un aspect déjà il faut aussi ñu sensibiliser les femmes. Mhm. parce que le numérique c'est vraiment un processus bu ñu dab. Mm-hmm. c'est une innovation mais est-ce que sensibiliser nañ les femmes par rapport à ces outils numériques là est-ce que sensibiliser nañu euh, aussi ñi nga xamante ne ñooy tous les usagers pour ñu xam ne internet du pour saaga du pour violence du pour malmener nit yi du pour waxal nit ki lu la neer nit yi seen sëy yaa ngi tas ndax internet nit yi ñu ngi yàq seen dund seen àddina ñuy dem di di di suicide wu di xaru ndax seen dund bu yàqu ci ay yu yoo xam ne peut-être bu ñu sensibiliser bu ñu éduquer cette population numérique là lu bëri dina dina changer